Aliou Sénégal ak Sonia jërëjëf Reenu Guy gi ak Sonia Reenu Guy gi moo tëj bopp bi ñoom ñaar ñëpp ngeen mu gurus lañ moo tax ma jaar si dërëj ba waaw kay xali merci kon yaa jum kon jum comme spécial bi la Guy gi nee guy gi moo daal dëj bopp bi ñaari bëre ngeen leetoo ñaari bëre leetoo leetoo baa ngi bëgg yàgg at bi nee na bëre leen war a jaxasoo leen at bi nii lañ fi nekkee ñoom si ñaari contrat duñu wax ak ñoom parce que juste nu bi ñoom si ñaari contrat duñu wax supporter di wax ñoom duñu wax reporter ñoom duñu wax waaye mën biir géew gi di lewtoo lewtoo ba yàgg mel ni ko ragalante arbitre di doog a wax di xoolal ma keneen ki nee nga jaxasoo di xoolal ma li xoolal ma li arbitre yi ah, faa dama leen bëgg man ateen ñëw si si diggante Sonia ak Reenu Guy gi Sonia laaw na déedéet du laaw cokkaas na <laughs> c'est Momo ki reti fi Momo ab bi day sifle si biir géew bi ab eh, moom gaaw ni voilà sama yoon nekk si ab moo def lool defal lool ne arbitre yéen moom boo leen dara wax jërëjëf di rek ak avertir reenu guy gi cokkaas na déedéet Sonia moo cokkaas waaw Sonia moom tur la la amoo tur Sonia ah wax nga dëgg xale yi tur tur jigéen ñooy tur Sonia waaye man loo soxla nekk si xale yi waxal loo neex en tout mooy balaa ngeen di guy gi reenu guy gi door na mais neen ma jox ko téléphone bi ah. maa ngi enregistré maa ngi porté diggante su ay eh! eh, waaw waaw sànq ba jël na ko plaqué na daal na la dëj loolu mooy dëj reeni guy gi dëj na sooña reeni guy gi dëj na sooña dégg nga si supporters yi ñoom dañuy subir avant combat bi di commencé arbitre bi rek nga ñëw mu jox la ndam mënoo bëri toogal Aliou jëlee ma supporter yi gaaw man sax damay dem man sax damay dem supporter yi xajal ma daal may ma ma ñaay karan taj aaru koy gën xale baa ngi nii xale baa